بيت الولايات مفتاح الظلام ومفتاح الكنوز وختم الكل nee nañu ba mu demee Makka 1888 jàkkaarloo Kaaba gu sell ga téye ci ahdaab ya place yooyu nga xam ne lu fa waay ñaan yàlla mu nangu muy baabul kaabati wala muy xatim wala muy multazam yooyu yëpp nekk amaakinul ijaaba mu xam ko dafa taxaw dër ne yàlla maa ngi lay ñaan su ma delloo réew ma ma jëm réew mu lëndëm la lu fa feeñ ci leer danañ ko kooj maa ngi lay ñaan yow yàlla loo ma nar a may ci leer nga dencal ma ko ëllëg ba ma ñëw ci sa kanam bu ñaareel bi itam maa ngi lay ñaan su ma delloo nanga ma may mu jaar ci sama loxo ak sama njaboot ñu tabax ay barabi jaamu yàlla yi sëriñ Cheikh doon waxtaane léegi te kooku mooy li alxaaji Pape Diouf wax léegi te mooy barabu jaamukaayu yàlla te loolu moo tax yàlla binduñu bi ci des mu ne ko maa ngi lay ñaan nga may ma barab boo xam ne danaa fa daje ak samay mbokki jullit ñu xamante fa di fa tuur sunu ñaq ndax daana wax ne la akluha bi duffi wal mazamiri xayrun min akliha bi diin nee na man Malick ma yore ndënd di tëgg wala ma yore filt di di di di di liit di toxoro bañ jox ma aslëf ma def ci sama poche moo ma gënal ñu may jox alal ci diine yaakaar ne man baax naa te baaxuma waaw wax na ci téeréem bi kifaayatu raaxibiina mu ne yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy wooye ay sëriñ bu ngeen feeñee ci biti di wane ragal yàlla ñu leen di jox ngeen di def ci seen poche fa kayfa ida xalawtu ma allah bu ngeen wéetee ak seen borom naka ngeen di def kon maam Cheikh Al Hadj Malick ci dëgg-dëgg dugg na géew duggaale ñu géew li ci des moom mooy ñu góor góorgóorlu bu baax a baax a baax mat nañu sëriñ est-ce que ñun mat nañ ko njaboot loolu mooy suñu problème te nag bari na lu waay di def ne sama sëriñ attan na ko te bu ko àttanee itam ruus na ko yellu ëllëg ci kanamu yàlla mbokk yi nañ góorgóorlu nañ jub waaw nañ jub ñun ñëpp waaw nañ jub ñun ñëpp waaw li sëriñ Cheikh wax ci wàllu njàngale. daana wax ne mam Cheikh El Hadj Malick man maa ngi leen di ñaan yéen ñi ñuy tudd ay sëriñ na ngeen bàyyi xel taalibe yi leen topp ngeen jàngal leen ala nabbihul atbaa kay laa tuaxadu bi ma ahdathu fi diini duna sawaay na ngeen leen jàngal ba ñu xam diine su ngeen ko deful bu ëllëgee lu ñu fi def ëllëg yéen yéen a ko responsable ëllëg ci kanamu yàlla wa taalimuhum fardun jàngal njaboot gi xamal ne xamal leen diine ak taalibe yi leen topp farata la de ak cëriñ du kaalawu rek fa tabarakallah ñu lay jox addi ngay def sa poche doo won kenn yàlla doo wax kenn yàlla nekkoo ci njub moom Cheikh El Hadj dafa dénoncé loolu walaw bi ijaaratin bu fekkente ne amuloo jot génneel ci sa poche koo fay mu toog di la jàngale boo ko deful wa illa alayka al ithmu yowma liqaayi bu ëllëgee bàkkaaru yar njaboot gi ak jàngal leen teg leen ci yoon dana dal ci sa kaw bis boo dajeeg sa boroom kon mbokk yi xanaa ñu doon lee góorgóorlu bu baax a baax manhaju tarbiya bi sëriñ Cheikh doon waxtaane nga xam na ci la maam Cheikh Alhaaj Malick tegu lépp lu mu doon tere moom moo la ci jiitu waaw moo la ci jiitu ragal yàlla maandu jub fegu nekk boroom xam-xam xam-xam nit waru ko tiitaroo am na ñu jàng mutuun yi mokal ko te ñu gëna kacior kàccoor ñépp waaw moo góor gi mas nañu netti ne mam Cerno Saidu Nuur mo wax ne Cerno Muhammadul muhtar Saaxo mo doon wax ne Cheikh Al Hadji Malick laxdari yoom moo gën kawe sunu Cheikh khalil ñu ne ko lutax mu ne ragal yàlla ga motax tax te yàlla daf ne wattaqullaha wa yuallimukumullah ta ab du xam-xam du ay téré yu ñuy jàng العلم نور يقذفه الله في قلب عبده التقي النقي الورع الزاهد خم خم لير لا انا دمي دف لما جانغ منو مكو تك لما تك فاتك ما نيو جي سرين بابا كار دي جامبا دي ور كيس منو كو باي المو يالا شكوت إلى وكيع فأرشدني إلى ترك المعصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأيمانهم نوراني ذكر وسنة فما بالهم في حالك ظلمات moo tax li Pape Makhtar wax rek ñun ñëpp nañ góorgóorluwaat bokk yi nafaraat suñu bopp nit balay wax kenn dara day fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha waaye fa ida intahat minhu fa anta hakim nit day tàmbale ci boppam yaraat boppam delloo siwaat ci lépp te li ñu gis mu dañu nax la seen bàyyim alxaaji Mansour waxoon ni wa ma kullu baydain chahma du loo gis muy weex rek gerees bu la taxee di wàcc di nga àgg fa nga jëm defee nag waxtaan yi yëpp Fatab wax na ko du xam-xam wane waaye dañu bëgg ñun ñëpp rek ñu dellu si waat tënk ci li nga xam ni mooy li nga xam ni moom la mag mi bàyyi bàyyi ko fi ba talul dara dara dara ba boo liiree ci ku aju ci moom moom amuloo tuuma boo ko mën a jàppee ndax li waroon yëpp jàngale na ko jëfe ko ñëpp gis ñëpp gis comme li ñu wax ni laqad kana lakum fi rasulillahi liman kana yarju llaha wal yawm al akhir wa dhakara allaha wa lamma ra al muminuna al ahzaba qalu hadha wa sadaqa allahu ma zadahum illa zaadahum wa tasliman min al muminina fa minhum man qada wa minhum man yan wa yamma wa salaamu alaykum jàng fatiha salat al fatiha wallahi li maxtaar wax dëgg la mbokk yi ñu ngi dund dund goo xam ni xamuñu fu mu jëm te yépp rek ñàkk bàyyi xel suñu bopp la waaw nañ bàyyi xel suñu bopp bu baax a baax teguwaat ci yoon inna hada siraati daf ci war a jaar inna hadaynaahu imma wa imma kon ku des wax wax na ko fa tabarakallahu ñetti waxtaan yi tegloo yépp fa tabarakallahu ko defee ñun rek ñoo mën a dellu siwaat uufaat suñu njaboot pap pap Tamsir a ngi wax sànq rek ne kullu mawludin yuladu fa abawaahu aw yu fan la problème bi nekk te kullukum raayin wa kullukum masulun an raayatihi defee nag ñun ñëpp ñu jàng faatiha li li waxtaan bi daal li ko sëriñ Bay li ko sëriñ kër jële mooy ñu nafaraat suñu bopp biti bi ni mu mel léegi ci kër yi la jóge bu kër yi jegee rek biti bi jax waaye bu kër yi jagul biti bi du jag te comme que biti bi yàqu na nag fan la yàqu bi jóge fan la yàqu bi jóge bu fekkee ci biir amul kuy yàq wala kuy tere nit saaga saaga di ko tere saaga loo da ngay saxal la mu def wala da nga koy koy tere bu ko defee nag lii Maxtaar wax ñun ñëpp ñu àndaat kenn ku nekk boo demee tey ba la ngay tëdd xoolal sa digganteeg sa boroom loo fi def wa waxaasibin nafsa في الدنيا محاسبة قبل القيامة دون خسران رفعنا بنكو تابير من فيديو نيب نريك لبار سنو باب بلا غي خول نيو تيفكين فابدأ بنفسك فانها لا تأمرون الناس وتنسون أفلا تقول التعقل التعقل والتبصر والتفكر والتدبر لي ليب خلت خيالة ديكو واخ فين نيب ندير سيوان رك خاصني كده نك لين واحد تاني waxtaan waxtaane bëgg lii ñu gis te jamono indi loo xam ne lii te sunu borom subhanahu wa taala mooy waxoon euh, sunu borom nu mu ko waxee woon sax inna allaha am na nu waxoon ni du ubbil porte benn yéeféer muy pénétré wu nu mu ko tuddati euh, ah lan yajal allahu lil kafirina alal muminina léegi kan moo ubbeeku kan moo ubbeeku ah ñun ubbeeku waxtaan danaa la woon benn téere suba maa ngi ko gis ñu ne George Bush ak Sharon ñoo remplacé xam ma ndax ñoom la jullit yi gën a dégg dégg ci yàlla ah waxtaan <laughs> dinaa la ko woon suba téere bi <laughs> insha allahu taala ah bu ko defee nag yii mu waxtaan waxtaane li sunu doom ji di sunu sëriñ di sunu lépp waxtaani Bachir waxtaane ko Maxtar waxtaane ko ñëpp dañu jaaxle rek ñun ñëpp dañu dellu si waxuñu nag bu kenn tent waaye dégg ngeen Seydi Hadji ni muy dunde lekk lu mu xam fu mu jóge waaye bu ñu demee ba léegi ñu ne kenn du ko liggéey dañu koy fan la la ji inna rajaa la fi bu doon bu leen waaye deel tegtaloo soog a yaakaar mu ne man kaana daa xirfatin fal yuxyiha moo gën ndem di tuumaal ak daru shikaayata yaa qawmi ñu jàng fatiha salaat al fatiha هي وقتان امنا سولو ترب مختار امنا سولو ترب لو جات فات مصيبه لا لو جات رك فات مصيبه لا اه فمي باخي فمي باخي عبد العزيز فم لي باخ باخ باخ يالا ني يالا ديلو سي دال بو تول يي دونداتي رك ني جار في ني ورا جار كين كو نيك ديغا ام لو دوندي تا دو تاخال كين كين دولا تاخال وكو خامني كي ماكله حرام مشربه حرام مدعه حرام ان يستجاب لهم كلوا مما في الأرض حلالا لا تأكلوا أموالكم بينكم وتدلوا بها إلى لتأكلوا بال فاتحة صلاة فاتحة waajur ci doom moom ko am di leen waajur bi yàlla na ko yàlla sotal booleeg masuul yëpp ñi nga xam ne mu ngi leen di xaar yal yàlla may leen ngeen téye ko na ngeen ko war a téye ba dara du des ginnaaw ci barke Seydina Muhammad fatiha salat al fatiha الكنوز وختم الكل للناس